toujours Serigne Habibou Touba ci kanam ñi ngi yeesal seen pas-pas ak seenu jaayante ci liggéey bii nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha santaane na ko te ba mu tàmbalee ñu faboon matériel bi nga xam ne Touba ci kanam amoon na ko daa ko liggéeyee ci lu jëm ci lii ndax Touba ci kanam naka jekk lu aju ci dëkk bi moom moo tax ñu sos Touba ci kanam jëmmi dëkk Touba moo moo sos moo sos Touba ci kanam li ñuy laaj ak li ñuy dajale lépp it dëkk bi rek moo ko moom loolu nag tax na Touba ci kanam njëkk muy taw tàmbali nañ liggéey yi nga xam ne baaxoo nañ ko def ndax am nañ commission bu ñu tuddee commission wàllu boo xam ne li ñu nopp lu néew na lool bi bi mu tawee itam ci taw yu jëkk ya ba ci taw bu mujj bu bari bii nga xam ne moo tax sëñ bi taxawal mbooloo mi fekk na ñoom ñu nekk ci terrain bi di jàppale nit ñi di xëcc di di manque ndox mi ci mbedd mi di ko di di di ko génnee muy dem ci kanaar yi loolu liggéey la boo xam ne naka jekk wàllu commission wàllu dañ koy def fekkoon na itam ci itte si xalaatam mu kër goo xam ne jàppoon nañ ñi nga xam ne seen ndox mi day nangu seen kër ñu war ko ñu am fuñ ñu ñu bëgg fuñ dugg ñu taxawu leen ba am fu ñu dugg ñu taxaw a kër kër loolu lépp jiitu na soññeb sëriñ bi ndax lépp sax ci ndigalu sëñ bi la waaye nag jiitu na soññee bii nga xam ne sëñ bi da ko soññee yëkkati yëfi boppam def ci boole ñu ak commune bi ak isbu tarxiya kon Touba Ca Kanam naka jekk mi ngi woon ci loolu waaye bi soññee bi ñëwee nag ñu gën cee soññiku fas yéene cee gën a takkaa suñu laxasaay moo tax matériel bi ne amoon nañ mu jëm lépp dañoo ñëw jëbbal ko kuréel gi li leneen lu fi ñëw itam te nga xam ne ñu koy indi dañoo wax ne dañoo bëgg mu dugg ci liggéeyu mën mi dañ koy indi jébbalaat ko waa kuréel gi lu mel ni ab ceeb ñëw na fi wax na ci sëñ Motulaay mi jiit social la jaar dañ koo jébbalewaat ab xaalis ñëw na boo xam ne itam dañ koo jéb dañ koo jébbalewaat tey jii nag sëriñ Habib ak mbooloo mi génnee ci li nga xam ne daa nekk ci konti Touba ci kanam te nekkal fi sëriñ Touba nga xam ne Cheikh Mamadou taxaal bu ne woon tey li des ci ngoon gi dama bëgg lépp ngeen Euh, yu de ko yéen mat lépp tey jii dañ koy dindi yit ko ko loolee nag moo tax ñu xam ne lii liggéeyu Sëriñ Tuubaa moo tax ñu jël ci lu toll ci cinquante millions indi ko fas yéene ko jébbal waa kuréel gi ngir ñu def ko ci liggéey bi ci seex ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax sànq rek ginnaaw takkusaan rek jokkoon ak sëriñ bi jokkoon ak Cheikh du mun ba leerlu ko ba mun Mountakha sëriñ bi xamal ko ne ko loolu yóbbu ko ci kuréel ga ndax yóbbu gi nga ko fay yóbbu ak gàttandu lay doon ab soññee lay doon noonu la ko sëriñ ak gàttandu la ab soññee la te soññiwaat taalibe yëpp nag ñu xam ne ñoom ñëpp taalibe bu ne waa nga cee def sa loxo kon loolu moo waral sëñ Abibu andi ko fii ci kuréel gi di ko teg ci loxol sëñ Yuusu ak sëñ Abdu Lahat ka ñoom ñi nga xam ne ñoom lañu seqal kuréel gi loolu ndigalu seex Cheikh Mouhamadoul Mountakha la ci am li ci des nag tubaa ci kanam mu ngi feddali ak laxasaayam ak jaayanteem ci sëñ Touba ci liggéey bii ak beneen liggéey bu mel ne moom bu mën a ñëw jekk nañ ngi liggéeyal ko sëñ Touba ndax loolu dong moo tax kuréel gu jug amul leneen yal na ñu ci yàlla defal tawféex bañ day ca ngërëmu sëriñ Touba jërë ngeen jëf. ci turu kuréel bi li junnatun liman nazamahu Touba ci kanam nag kàddu yi ma ciy wax euh, dama koy tàmbalee ci waxi sëñ Touba ji mu wax minal xadiimi ilal maxdoomi miisaanu laa yantahi ajruhu kaylun wa miisaanu benn balance bu ma gis boo xam ne mën naa peese seen jëf ci dëkk bi man xaw ma ko ndax joxe sa bopp bu jeex tàkk laa gis juróom fukki million yii de dafa ñëw di jëmmal waaye li ngeen def te kenn gisu ko moo ëpp doole ndax koo xam ne tey jii boo demee ci terrain bi fekk fa ay tractopelle fekk fa ay camion fekk fa ay auto vidange fekk fa ay l ay pick-up fekk ay kuréel yoo xam ne ay mbooloo yoo xam ne dañ leen tàggat bañ doon ñoo xam ne seen expertise kenn mënu leen a fay loolu euh, ak tamit suba ngoon lu fa ñëw ñu di ko def nekkoon ci naka jekk kon dañ naan la ma sëñ taxa waxoon bis bi may wootee bi may may wootee ci ndigalam bisu xaside yi daf ma ne woon demal ci sëñ am Amsatu nga ne ko te nga xam ne lépp lu ñu def ci xaside yi moom lañ koy jàppale kon da caa nekkoon def ko toolam looloo tax sëñ Muntaxa seeral ko loolu waaye yéen tamit da ngeen jël Tuubaa def ko seen seen tool kon ku ciy def dara yéen la koy jàppale kon ñu ngi leen di sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee am na fu waaye amul fu mu yem cant it dañ ciy soññaat suñu bopp ndax ñun ñëpp ci Tuubaa ci kanam lañ bokk loolu bis bu set ma koy wax waa Hizbut Tarqiyyah nun taalibe yi bu kenn des nag ku ne fexe ba sa jëf doon fi sa seere ne ànd nga ak mun Muntaxa ci wooteem bi ku ne na indi sa jëf waaw am na ñoo xam ne ñu ngi jëf naan maa ngi jëfal sama wayjur am ñoo xam ne maa ngi jëfal sama maam am ñoo xam ne maa ngi jëfal sama njaboot jëf yooyu ak pas-pas yooyu na nga xam ne lu ci neen du ci am kon lii daal laa ne woon naa ko soññaat sama bopp tey santaat nag ci ànd nu Sëriñ Muntaxa boole moom mi nga xam ne yàllaa ko dimbalee yaral xafaaya bi aynil xalbi zahiratan kama yushaahidu ma taxtal ak in naati moom xam na lu lu kenn xamut moo tax mu boole ñu jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an haadikin maridi